ايوه قاعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق ولا إله إلا المستقيم ولا علي قدر من قدر القسم يا همة السيق أغدرنا بأس المخطر والكافر دون السكن تاتنا بسبل ah mbokk yi benn ak benn la asaabu Cheikh na Tidiane ci njiitu Alaaji Tafsir Caam del saat nañ tey ci daara ji ci jaayilmaan bi ci deuxième xaaj bi ci xatam ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett ah léegi nag ñi ngi nekkoon ci place yi nga xam ne siddiqina yi fay seen place ak bi nga xam ne mooy acta bi nag yéene seen place fañ àggoon mu ne amul ku ca mën a dem ah nabi nag ñoom ñu nekk ci quatrième position ci kaw ñu ne waaw foofu kon nag mooy kan xadratu hiya moom xadrato mooy attuye ba alxaas bii pay bi nga moom rek rek rek moo ko moom loolu tuddee xadratu nubooti nubootu xadraam nubootu mooy numéro un mooy numéro deux moo tax lu ñu waxante bul xool ko xool ci foofu nag dëgg-dëgg muhammadiya dong moo jagoo ahmadiya bokkal ko kenn xoolal nii nii lay lay toog na bay bay ba bay ruus ak ruusi kii na rek bi ma dikkee déglu li yëpp yëpp mi koy kii dégg nga de yii nañu fontoo rek dégg de kooku nag laa man maa di akta bi wala bii na an yesuma ñu foon mi raayatoon xëy foofee nga xam ne moom mooy dañ koo jagalee mo sallallahu alayhi wa sallam benn yonent du ko xëy benn keneen du ko xëy an yes moo mina arayatul déedéet xoolal de cheikh mu ne walaw tabada minhu minha su noon am na lu doon paccet càqatu Muhammad yi boobu miqdaara xëy atin lu toll naka benn as tuut bu doon cuy feeñ ala akabir rusuli te ponkal yoon ci laa wax de waxuma yoneen waliya waxuma xudduya xaqiqatul muhammad bi nga xam ne moom dong moom sàllaa moo ko jagoo lu ci amoon lu ci génn feeñee ko akabir uh, uh, rusuli uh, kon akabir rusuli tawa jada min haybatil jalali wasaaroo maadal adad lool bu ca amoon lu ci ne tëll génn ci xàqati moom réer dinañ ciy ñoom kon dañuy ah, ah, xam nga ko ku perte daal dafay dafay rëngi-rëngi dañuy baaje duñ mën a te taxaw dañuy terter ndax la ndax wégal ko ci moom dañuy mujj sax duñ ko mën dañuy seey saaroo man ma dal adami fi àqali mi lu gën a tuuti xafa xit bi sax lii nag màggaay gii la pay ba nga xam ne moom la sala sala salam jagoo màggaay bii la nekkee suma wax yu mi na laay gannaaw ga ñu am loo xam ne am na loo xam ne message lu bàyyi ko ci laaw li asaabi xaatal maraati bi ñeel borom marta bi nag ñi marta bi ñoo doon tudd nii ci gannaaw foofu lañ am luñ fa luñ fa jëlee nag message boo bàyyi ko pour gars yi xam ne mooy borom marta bi ku ku nekk nag ba ngay jot sa message xaalaa xadri martabatin wax yi ma nga nekkam dégrép lañ la message bi la lañ nekkee nga message bu buñ koy yónni kenn ku ne message bi ñu ëppante ah li wax ah voltage léegi ah, xam nga léegi boo demee ci booy abone yaa ngay seet sa abone nam toll bi ci courant bi boo jëlee liy taal lamp nga bëgg koo def mu tolloog boo xam ne mooy taal courant du firi si def def looy demande war ngoo tax ñun ñooy def ñun ñooy def ay tricage mm-hmm. moo luy taal euh, luy da war a jël voltage su toll ak moom machine yi nga xam ne mooy machine yi yore dynamo ñaari fil du ko taal mukk dina am na nga gisee trois fil yi nga gisee kaw dafa ay jeex waaye boo dikkee buy wàcc ci ñoo jël jox dafa am trois yoo xam ne ñooy trois entrant ak trois sortant trois sortant entrant yële dañ leen di bukkale trois sortant yi dañ leen di tasaare waaw <laughs> lu ci ne man <laughs> <laughs> lu ci def ko mu te lu ci ne damay xool lu ci def ko xool ko puisque lu ci ne dama man damaa xamoon xamal lii lan na sax dégg lii lay nekkee de moo tax nag boo xoolee leen ñu saaroo ci biti nga foog ne yow tasaaroo fekk benn la ci biir moo tax lii moo lay xamal benn benn yi nga gis ñu bëri yoon bu la jaaxal benn benn bi nañ bëreeg seetal courant lamp lampaat yi ñu nekk ci dëkk bi tey ñaata làmp lampaat lamp lampaat yëpp ñu nga dëkk ca takk ci fiil fiil yooyu ñu nga takk ci cinq pile cinq pile ñu ko jël ci rotation bi rotation bu mu bàyyi ko ci benn machine moo tax bu mu la jaaxal bëri yaayu leer yi bëri benn benn benn benn leer rek moo fi nekk ca leeram ko leer gu ndaw nag ak leer gu ndaw fi nekk puissance ya la ñuy jot kenn ku ne sa puissance kullun ala qadri martabati min al waxyi faama asaabul martabatil ula naka martabaab bu njëkk foofu ñoom jameel xalq yi mboolem bi fi xam nga ñeenti mooy mooy waa saayir nii ñoom ña njëkk jot alma jooboona dañ leen yiir nag ah dégg nag fa waxaa envoyé alaawe ilay ma loo xamante ni yooyu comme daf leen dee gaar fi xaalatul maanaam yi ci taaw nelaw di ku xamul yàlla nu mel ci nim ñëgee yëge ku nelaw na mooy na mooy dundee tey gis di gént noonu la taxawee taxawaayu maa jóob noonu la taxawee taxawaayu kuy gént yàllaa leen wàcc loo xam ne maa yooyu comme fi al manaamilihum maasaa min umari xëy bi fa nga nekk di sa nelaw ya man nañ laa gindil nag loo xam ne yaa ngi ko gis ci gént bi mu mel nii mu mel naa xam nga nit ñi léeg-léeg gis ah gént gis ay puub gént gis ay salte nga defee na yow nekkuloo ci xadratul kursi te xamul ne yaa ngi ci xadratul kursi <laughs> xadratul xamul nekk xudus pour moom la nga gën a bañ am na ko gën a bëgg la gën a xesa xañ tey moom weeñ moom lu mu gën a xesa ni yëf yi gën a xeñee rek xasawee rek ah bi baax mi ngi mel ni parfum nu mu gën a neexee ci yow moom noonu neexee ci moom kon yow xalaat neex gara neex ak ndaqar ci ku mu nekk ndax lii ci la nekk déedéet ci yow kon nag yow mii gaar gaar si yaa ne kii man neex na ma kii na ma neexum kii danga segere rek ko neex kii nag bu ko xëyee moom da da bakkari gis nga kon nag xuddoos moo nekk ci lépp nag man ngaa dikk na gis xuddoos fekk na dañ lay yëg xudseetu bi loolu tax nag nit ñi mënuñoo mënuñoo yàlla bu yàlla bu manqué bu xamoon fi manqué fële kon am na fu manqué kon nag boo gisee mbóot ya ak sax nga jam nii tort ci duus bi nga gis mbóot yi ak sax yi ña ngay kii ñoom yow yaa ngi da ngay bànneexoo ci sa ceebu jën ba ah ba ngay téyee bool ba donc ni mu la neexee wallaahi noonu nag moo leen dàqal sax ñoom moo leen dàqal fépp ndax yow ceeb ba da ngaa dikk waaye ñoom dañuy dikk lab ca nag oh waaw kay kenn ku ne maa maa ci ëppale mbóot yi nag mbóot yi nag kenn ku ne woo nañ làqu ca mbóot ma kon gis nga loo fi nekk lu boo fii nag ngay dem ba gis naa ah, kon nag gaar-gaar yi nga xam ne neex na ma naqari na ma ci fi ma taxaw la ndaxte la nga bàyyi ca duuf ba lu ko ëpp bu wóob ngi fii mbaq mi te ñun ñëpp ñu ngi fi daal dara xëñu waaye boo demee ca duuf booy dugg rek mu xëñ kon li xam nga lu tax li ne xëñ dafa génn ci aadéet aadéet bi mu génn moo koy indi xëñ ñun nag boo génn aadéet boo gis xëñ <laughs> moo tax lépp ne ko <laughs> saw maniyu deret loola ci laal nga ne waaye nag mi ngi ci yow fee tel te kat ci gën a neex loolu lay dundal muy meew mi ma nga génne ci diggante min ba farsin wala ba ni <laughs> wa dëmmiñ eh, der ju xonq coy ak sébili boo xam ne dafa xasoo kut nga génn ci meew moo xam dafa weex tàll saf sàpp niin bat <laughs> ñett yëf la dégg nga ñett moom mu nga génn ci diggante deret ak sébili boo fa génnee am na benn couleur boo xam ne boole ko ci yow moom na mu génne weex am na couleur bu boole seen couleur boo ko defee saf mbokk na seen caf ko mu niin batt nag lii yëpp mi ngi ci bit bit meew te mi ngi bàyyi ko ci ci ci ci ci lii nag kon ndax xam na fi dul kuddóos ah xadra dul ko ci xeer lamaa wi laa si waa xaa yaaman yoróomu li kaa xaa amul lu xaddu sukkur si <laughs> ah ah, ah. lii wax ko yomb na waaye dégg ko fajre ah, moo tax nag boo gisee xaalis gañe moom daf koy dafa fànnaaw ci fànnaaw goo xam ne fànnaaw du moo jeex ñoom dañ koy effacé labal ko yem walaaw may sa way suutu may sa ku ma neex maa lay effacé sa taxawaay maa lay samp ci sama taxawaay soo ko defee rek nga nekk fi boolante ñaar des witti jeex tàkk kon nag ba léegi xaaral xaalis ñaar yi mën a jaar boolante ñaar yokk ne kenn mënu ko nii rek yàlla may lii lii tax nag nit la gën a yàlla fonk ci lim la xam ndax waxoon ne li daani ñaar yu safaanoo daje loolu ko mën kon nag lii nag kenn ku ci nekk nag foofu moom jeneen xalqi alma jobo فوحى الله إليهم ما يحييهم في حال المنام لهم ما شاء من أمور الغيب في وقت في وقت في وقت waxtu boo xam ne maa loo xam ne fii jami awqaati heure ba muy nelaw nag dina ko ci wan loo xam lu ko ci wan lépp nag waxum ñoom nag nga xamante ni ñoom ñu amee kiiraay boobu ñu amee message boobu asaabu saa yit ulohit ulohit saa yomb ulohit ñoo ñii xam nga ulóomiyatu wax naa la toujours ne laahu ruuxu ba nga xam ne mooy ruuxul xàq bi day ko tuddee laaxu fekk aar la laaxu nag fa muy feeñ mooy ulóomiyatu te mooy yaram gi yaram mooy waa saayir du mooy waa saayir boo déggee ulóomiyatu nag mooy asaabu saay saayiru ulóomiyatu waa maa ba saamu asaabu baatinu ulóomiyatu ñi nga xam ne ñooy ñi xam ne ñooy baatinu ulóomiyatu ndax gis nga de ba baatinul ya mooy ruux mooy ruuxul asam mooy xel saayirum bi rek mooy gis kon nag dafa am biti am biir joon yi nag ñoo nekk ci biti nii ma dex nag li xam ne mooy mooy seen baat ah waxum ñoom asidi koona mooy ñaa dañoo dëgg ñu nga de ñu nga gis nga yaram mooy siddiq lu tax ñu tuddee ko siddiq mooy jox na ruuxum jox na ruuxu lam amoon yépp ne ko lii jëlal yaa bëgg foo déggee jëlal nopp yaa bëgg gis jëlal yaa bëgg boo yëre xamee eh, banni jëlal yaa bëgg fooy waxee sa wax ji ak lekk jëlal jox ko jëf jëpp ñoo ko yaa dëggu moo tax boo diggee tasdiq rek ca bit la boo diggee tahqiq rek ca biir la moo tax ñii tuddee asaabu siddiqin ñi nga xam ne ñoom ñoo am ah loolu nag ah ñoom hum ñoom asidiqoona la fa wahyoo ilim ñoom nag seen message an kasafa dafa ñori loxum ñe leen awaalal ah, xëy bi la doon dox ci xëy bu jaxran ci biti nag si di xëy foo ko déggee mooy ñi nga xam ne ñoom taxaw nañ boo digg kësu nag nit ñi dur kësu mooy luñ sàngoon ci taabal bi ñëw kësu déedéet kësu mooy xam-xam loo xamuroon ñu jox la ci xam-xam nam tëddee loolu mooy kësu moo tax bàyyi na mal kësu bi kësul mu kawanaat mal amru bi kësul mu kawanaat xam nga nit ñi bu ñu déggee kësu da ngay foog ne ngaa toog fi di xool màkk mm-hmm. loolu ki jaar loolu kiraay la mm-hmm. nga toog fi di xool xala sa kursi loolu baaxul mm-hmm. mal amru bi kësul mu kawanaat kësu nekkul ñu woon woon la mu kawanaat loolu da kësu de wala tiraanul mu xëy ban nga yër xëy bi déedéet xam-xam loo xamu doon nga xam ko tey xam nan taxawee bu wér loolu mooy kësu waaye nag nga dikk tey man door la ka per per peta yu xool ni xool ni ah bii de boo xool ah nangam la nangam la loolu du gëstu moo tax yi du seet dafay gis boo digg kaay ma seetal la boo gis loolu moo tax wali du wax du dikk doo ko wax doo dikk mu ne du ma seetal lu yëpp kenn du ko ci def ñoom dañoo dikk rek da xool rek su fekkee ne gëm nga gëm gi baax dëggee nañ dëggee gis lañ gis la da ngay nañ dëggoo de moo tax taalibe fi ñu koy tarbiya pour mu génne ci maqaamu hijab bi dikk ci tasdiq ta yoo amee nag tasdiq nag fa laa jëlee nag ay ay escalier di dox nag dëggal confirmation la dangaa dëggaat ba ngay fànnaaw dangaa def tahqiq tahqiq dangaa dëggoon ci alastu bi rabbikum qaalu foofee tahqiq lañ fa defoon ba nga dikkee nag ah ñu solo nag liggéey liggéey jot ah ñu ne yaa waxoon ne ne su ma indee yónni yónni tàng da ngeen koy gëm waaw nga ne ko tey laa gën a dëggal nag yaa doon nekkoon ca maqaama wóor daaneetu ba tey laa la bëgg a dëggal fàdd ngay am jabar ma am jabar ma am doom nga am doom ma may sax la yow sax ma may sama doom man Ababacar Siddiq Siddiq du ma ko kii lu tax kon nag ñu di ko tudd baaba baay baaba bàyyi jànq ba au lieu ñu ne au lieu ñu ne Ababacar tudd Babacar tudd ay jànq xam nga tudd Abdoulaye la tudd Babacar tudd tudd tudd tudd Ababacar turu dàkkantal la mm-hmm. Siddiq turu confirmation la mm-hmm. dëggal ba mooy turu turu ba turu saayiram mm-hmm. dégg nga waaye turam dëgg-dëgg mooy Abdoulaye waaye léegi nag ma wax leen kan mooy Abdoulaye ci dëgg-dëgg Abdoulaye mooy mooy mooy wilaay bi loo tax ñu tuddee ko Siddiqul Akbar ki nga xam ne moo gën a dëggul ndax moom nangu na ca biir confirmé la ma waxoon ca biti ñu ne ko Siddiqul Akbar moom na nam ko defee ñun dañ di ko doy ci ko ca defin wax moo tax ñu tuddee fële fële ñu fa Abdoulaye tuddee fi Siddiq tax confirmation lay doon la xam seen dégg mooy tubaab nga man xam aani bee ko waaye nag <clears throat> loolu lañ tuddee boo légalisation ci dara dem ci sa ministère dem ci sa ambassade ba ñu légaliser ko ñu doog laa kii ndaxte ambassade boo dikkee fii lañ mën a xool sa passeport bi xool ci machine bi xam ne passeport bi nga jëlee duggee ci réew mi mooy original bi su ko defee ñu légaliser ko door ci tampon war ne dig bu dëgg bu nga xam ne mooy kii Sénégal mu ngi nii ak bi ma ko defal man moo tax légalisation nekk benn benn kase ñaata kase loolu il faut mu nekk ko moo tax il faut yow bi nga taxawee am nga ñaari kese moo tax nga taxawee taxawaay numéro deux nga nekk xaq siddiq nekk muhaqiq nekk siddiq nekk alhamdu nekk alhamdu rek fi nga ko nekk monsieur jaay maa ngi lay sànni ay filas nag foofu bu fekkee ne bëgg yaa ngi yaa ngi beneen ma lii lii boo da ngay xoom yàgg man yéen ñu ana ana ko fi taxaw waaw <laughs> wóor fii nag dañ koy rat wa asmawoo daf koy déggalee moom daf koy déggal wa asmawhum daf leen déggaloo sa subhaanahu wa taala lixaas yi daf leen déggaloo lii nag seen ji nga de daf lay wuñul nga nga nga gis dëgg gi daf lay dégtal dégg gi waaw ñu ne ko bàyyi ñu ne ko kon Cheikh Tidiane léegi nag Ah, eh, mu ne mi ngi ko amee musaawaratan hmm? moom nga dégg bàyyi xalifa saafatuhu bi yamini bi musamaratin wa dammani dammatan saabiha ilali <laughs> loolu mooy xel ñun xoolal gàmm boo nekk bu la nekkoon tey bu ñu nekkoon ñun suñ kii bi dañ gàmm gàmm dëkk réew mi yëpp waaw kër bi yëpp fii dégg fii mooy mooy grand débat mooy fii nii dëgg dëgg dëgg ah dëgg bàyyi xel fa def ne joxante naa ak yonent bi loxo bi musaamaratin ci musaamara laa ko defee ak mun a kon nit ñi xam ni xalifa defee musaamaratu mooy waxtaanu biir bi maanaam en message boo xam ne dama dikk dikkal ñu ku ñu seetal boo yoree écouteur xam nga boo tee boo defee sa téléphone bi nii tey nii ah def ko main libre ñëpp a koy déglu waaye nag boo jëlee nag si nga xamante ni rong nga dégg ko yow rek yaa téléphone bi yéen a dégg waxtaan ba loolu mooy mooy musaamaratu lii nag bu fekkente ni ñii dañu àgg fii moo tax ñu xam nga li tax fii fii bu matériel bi ñu wàcce dañ ko wàcce pour ñu mën a jàng suñu kayit bi lii boo jëlee écouteur ro casque bi nga nga jël kii bi rokk ci téléphone jël casque bi def fii léegi yàq téléphone bi kese yéen tikk ak loolu nit jege jege jege dégg loolu mooy musaamara ñoom nag dañoo jot yi fi ci musaamara lihaa si ah musaamaratuhoo yaakaar mooy ah waxtaanu biiram wax lahum ñeel leen lu tax nag yàlla di leen waxtaan waxtaanu casque euh, bi deful ko mel libre ñu dégg wax ji lan noo tax seex ñu wax lii ndax ñun lii ñun suñ matériel bii buñ ci mën doon firee tubaab yi ñun xamal lii tubaab yi ñoo ko liggéey déedéet dañ dikk rek ñoom ñu def ñoom parce que ñoom ñoo ñoo bëgg xaalis ñu defal ko ñu jox ñu jënd xaalis ñu waaye ñun liñ ci liggéey ñoom dañ ci liggéey waaye nag xaari fii ñoom dañuy leen defal kësu ñu gis dëgg ñu jox leen nag bi na déglu waxtaanam ci lixaa ci musaabat foofu lu lu tax ah, li tabda xaqaayiqa tilka asraar pour mu mën a xam nag dëgg dëgg siru ya siru yi mu ma xam dëgg dëgg siru yi siru yi seen dëgg yi ndax lii ay siru lañ mm-hmm. nit ñi tey ndax mën ngaa xam ni kii tax ak ni kii nekkee waaye nag fii mën nga cee dem ba nga xam ne nga dem kës boo xamante ni moo tax kësu googu nag boo déggee kuy wax ci tëjël yi xamuñ kësu ko xam ne nga am tiggi kësu mën ngaa dem ba gis ñu wan la li nga xamante ni même boo gisee ñu sa sa sa yaay sa bàyyi nañ leen lakkee sa bari mën nañu ko woon du yàq du la yàq rek ndaxte boo ñeme ngaa kii kii fii nag boo tax balaa ñëwee la ko defal dañ lay jox ndawlaay wala laltaay boo xamante ni man ngaa nekk ina laa maa saabirin da ngay mën a am sabr ba yàlla muñ muñ boobaa nga am tiggin moo tax ñu tëgg aadaab nga gëstu su ko defee yàllaa leen di déglul message bu neex boobu ci musaabara ah, seetal day kalifa ko nag daanuma wuyoo mu ne bii musaamaratin ci mag ñu ko firi ngoonaar musaamara dañ ko firi ngoonaar mooy waxtaanu guddi ñun ñaar képp ñu toog ba guddi ñu toog di waxtaan loolu noonu musaamara waaye booba nag ñun mag ñi gannaaw ñu am nañ nag dem nañ ba léegi xam ne musaamara mën ngaa jël sa ah, li nga maam sa casque bi roof ko ci téléphone bi roof ca nopp bi di ko loolu loolu gën mooy musaamara tontu wax joo xam ne yéen ñaar antarnoo la su ko defee nag mu di ko xamal nag li nga ci ni mooy yaa ngi dégg déglu nga déglu nga son bi hmm. son bi lu mu la wax yii man de tey li ma gis li ma sama téléphone bi li ma ci gis message bi ma jot tey son bii li mu wax ah bokk na suñ bi nga xam ne mooy busaay bi moom boo nga xam ne bëri moom kenn ku ne sa son ak ka ngay wax yow ndaxte mi ngi ni sa un bi ba nga defee sa empreinte bi empreinte bi ka nga xam ne moom la dafa wax son mooy wax ak moom kur moom wax ak moom sa empreinte bi sa un bii sa un bii lay wax ak de xaqiqa ba bii de ñoom ñaar kenn du jaar seen diggante taa yoo xam ne dinañ dinañ code bi nekkoon diggante bi rek nga jot li nga xamante ne mooy message ah dara du manqué kon nag mu ne kon nag la um li tëb daa fay ñu xaqaay ko tilkal asraar yi wali kay walakin la ko walakin waaye nag ji nga def ji nga wali kay bi fii yàq université yi boo boo fi yàq li maa ngi koy yóotee baraam jób di ko wax walakin la mun a wali kay waaw yéen ñi may xam ne yéen nekk de ko déglu ci kii moo tax ma naan bu nga amee seen téere walakin waaye wa in balakoo même buñ jotee maa balakoo ak luñ mën a jot dégg nga daal ñoom nag message buñ mën a jot lu message ba garaw garaaw garaaw mi wax yi laay ilayhim yàlla ay yooyu jox leen message bi bàyyi ko ci laaw ilim jëm ah gàtt na rubbatum xan martabatul aqtab ak nag loo mën a xew xutba ya fañ fañ jotee message bokk na fa nga jotee message te dëgg la ministère loo nit ñi jot jot am na ministère fu mu jotee foo xamante ni moo gën a kawe nag ndax hiérarchie yi moom moo hiérarchie moo tax hiérarchie yi bokkuñ jotee ñu ni ñuy jotee message ah ñuy jotee ni ñuy jotee message am moo tax am moo tax euh, booy fekk ne doon renseignement yoo xam ne bokk na renseignement tappale parce que renseignement tëpp tappale dafa am ci renseignement sunna roy mooy renseignement boo xam ne da ko loo xam ne pour nga mën cee collé waaye motif kooku da nga la indi renseignement boo xam moo def tappale yi waxuma boobu de gu yàlla moom du renseignement sunna roy kenn ku ne la ma jot bokk ni ko joti laa ilaaha illa ndax ndax man a ño ndëga de wa waaye nag laakin laakin wa in balaqoo maa balaqoo min waxi laay ak luñ mën a jot ci jot jot ci wu yàlla ilay taqasara rutbatum xan matru aktaab yi kama anal aktaab nag ku ñu tudd aktaab walaw balaqoo maa balaqoo même buñ jotee lañ mën a jóg min waxi ilay ñoom xutb yi ak luñ foor foor foor taqasara rutbatum xan matru nabi yi ñoom itam fa nabi yi jot jotee ñoom itam mooy ak alayhi salaatu wasalaam ndax dañuy hiérarchie bi na demee ah siddiqiina yi axtaab yi nëb yi nag mu tëne kenn ku ci nekk moo tax ñu nekk ñetti institution président assemblée président de la république président assemblée président tribunal kenn ku ne ko président ànd ak benn président moo nekk ci président yi kon nag kenn ku ci nekk fa ngay jot ñi nga xam ne ñu nekk ci tribunal yëpp mën ngaa jot de soo boo xamante ni la cooro yi bëri bëri avocat yi coow seen ba du ca tege ndax kon si confidentiel la <laughs> kon nag kenn ku ci nekk néew ba ngay jotee dossier bi da koo matee mat goo xam ne doo ko sensé doo ko ba bu ñu la doon teg sa part sa put gi ah doo ko def président mën naa jël aw loo xam ne xayu musal la ko nga ne man maa ko def moom buñ ko ca kër xas <laughs> loolu xam nga am loolu la doo am ci pays yàlla bi pays yàlla moom bu la ko joxee rek yow sa man-man fi li nga attan yamal fii mm-hmm. loolu la ko joxe moom kon nag kama ana rondata rasuli al akabiri mm-hmm. wa in fi wayu ma balakat taqasara xam rodbat yi ti rek mbooleen yonent yi ak li ñuy foor foor foor foor mm-hmm. seen garat xagu seen garaatu rasulullah sala sallam bokk moom mooy li nga xam ne mooy ndey min gi mooy président toutes les forces yi li ndax police rend tout le Sénégal ah kii nag moom moo dégg président tous les présidents yi ay président président président yëpp tey nag bu njëkkee nag mooy day jëfati kon nag foo wow yu laay ilayi wala ma foo waxaa laaw ilayi salaahu salaam fii martabatin ci martabatin moom yàlla laaxu dana ko joxe moom ndax tamit moom ci laaxu lay jëlee rasulaay la ilaha illallah alijaay yaa ma dégg rasulullaay jox moom laa ko jox damaa bëggoon ngeen xam kenn ku ci nekk ko jox moom ah moom rasulaay foo waxaa laaw ilayhi yàlla desasel na ko message bokk salaa sallam fii martabatin laa yutaawi maxluqun boo xam ne garaat boo xam ne mbindeef tolloxut ak moom moo tax président de la république institution la boo xam ne moo tiim mboolem luy institution xam nga ñun boo gisee politique tubaab bon naan libéral ak démocratie ak socialisme léegi ngay dem de saaga président bu la neexee loolu sa danse la nit yàlla du ko def boo gisee bàyyi bàyyi bàyyi ñes wala nit yàlla dañ ne ñett naafiq man doy def bàyyi ñu bokk nañu waxam mag ko xaral ci màggam ba ah borom xam yàlla ko xaral ci xam-xam buur yàlla ko xaral ci nguuram ga ba tax buur naafiq koy doy def ndaxte du mbañ xam nga ñun kuñ bañ rek ñun dañu politique politique een ba ngay bu bul fàtte ne yow mii de een président bi toog bu ëllëgee boo toogee ci institution bi dañ la war a jox cër boo gisee tey nag ñu ñu dem nag institution yàqu mooy bi ñuy laaj pouvoir yi dañoo dañ leen dañoo saaga borom pouvoir yi xam nga léegi saaga ko ko borom pouvoir fu ñu commencé ci politique Ablaye Wade waaye jamono tubaab yi kenn ñi mu saaga ca xanamu ikki ba si jamono Senghor léegi nag bi nga xamante ni Ablaye bindike nag bu la police sootu ku la ku ci police jaar dóor dóor ko ku la def nangam léegi pour bëgg lan bëgg ngaa jot waaye ba fàtt nga na nga nekk lii nag ñun dañuy duñ sàmm moo tax suñ policiers yi ñëpp ay cuune lañ policiers yi ñëpp ay cuune lañ ndaxte maa ngi déglu benn policier boo xam ne démb la ma wax ci nga xam ne ki ki tax ci paar bi yow boo duggee ci paar bu ëllëgee ku la def noonu dana baax léegi buñ fàtte mukk ne yow yaa yaa nekk yaa supervisé ak dëkk bi yëpp ko yaa supervisé bandi yi yi gën a doon bandi ak walu yi gën a nekk walu yi ñi gën a baax ak ñi gën a bon léegi nag soo jëlee nag ñu baax yi ñu bon nga xamale nag ne démocratie libérale yemale tollale soo ko waxee ci làmmiñ wi nii boo demee ba ci biir def ko du dem baadoolo bu mun ñoo mun ñoo bokk ab sees <laughs> mag <laughs>